wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani saddit lisaani nawir janaani safi amaani wasi baraay barke borom Tuubaa bokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xam naa dafa tolloog ndigal liñ ma jox ne ma ki nga xam ne moo fi teewal sëriñ bi bu waxee ba noppi nga fay ko ab nuyoo te jotal ko ay cant day lu mun te ñàkk tey ndigal waaye li nga xam ne jib na fi ci ay kàddu sëñ Galas wax ko ak ñi topp ci moom doyoon na sëkk waaye nag ndigal moom boo mënee defal boo tëlee defal rawatina ndigal loo xam ne wóor na la ne boo ko defee njariñ moo la ci toppe waaye du ci juddoo te bisub sëñ Mbàkke bu so boo ci defee wala nga wax ca wala nga dox ca lépp ay tuyaaba kon nag noo ngi leen di nuyu ci turu sëñ Ibrahima Bousso mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Mbàkke Bousso ak ci turu suñuy bàjjan soxna Asiyatu Bousso ak soxna Gàdd buso ak yu turu képp ko bokk ci sëñ Mbàkke Bousso di doom di sët di taalube ak képp ku dëkk gi di nuyu sëriñ Seex Mati Lay mi nga xam ne mooy xalif général de Mouride di feddali sunu bi ci moom di ko ñaanal mu ñaanal nu ba nu sax ci ak taalube te buñ ci jóg di ko ñaan mu ñaanal nu sax ci ak jub di ko ñaan mu ñaanal nu ba yàlla na yeex bis bu ñu dajee fa Sëriñ Tuubaa mu seereel nu bokk ci ñim seereel ne rafetal nañ sunu taalube te di ko ñaanal sama borom may ko fan wu gudd ak wér ba àggale lépp loo xam ne naal na ko ndax moom kat gis nañ ne adduna bi bëggu fi dara fagguwu fi dara wutu fi dara liggéeyal sëriñ Touba liggéeyal lislaam dong la fi nekk loolu moo tax jullit yépp gërëm nañ ko sant nañ ko ndax bu sañoon jub jullit yépp doon benn bokk yépp itam sant nañ ko dëkkub Touba bi ak jumaay sëriñ Touba ji ak barab yi ñuy jaamoo yàlla yépp sant nañ ko kon lépp loo xam ne naan na ko ci liggéeyal maam borom Touba yàlla na ko yeggale te fekke ko ñun ñépp nu bokk fekke te lum ci lum ci def nu ànd ca ci jëf ak ci wax ak ci joxe yàlla mën na ko yàlla na ko def bu loolu jàllee ñu sant bokk yi bokk yi nag suñ ko waxee dañuy wax rek bokki mbakk yi ak mbusoobe yi waaye ñoom dong duñ bokk yi ñu baax ci nit ci réew mi ñëpp lañ bokkal kon bokk yi yëpp la ñuy maas sant ci coono yi ak yëg gi rawatina waa Dagana Dagana na mu soree ñu bàyyi koo fa ñëw ba fii ngir jëmmi doxal ak bokk noo ngi leen di ñaanal. fa yàlla di fayee mbokk mu rafetal diggante mbokkam ak mbokkam yàlla leen fa fay may leen fan yu gudd akuk wér ñu yàgg a teew si ci bis bii bu loolu jàllee ñu nuyu ñi nga xam ne ñoo fi teewal nguur gi tàmbalee ko ci sëñ Xaadim Diop mii nga xamee ne moo fi teewal président de la république ak sëñ Babacar Diagne mii nga xam ne moo fi teewal sëriñ Bay préfet te moom it ñoom ñu ngi leen di seeral ak cant guñ leen sant ndax ñooy suñuy dëkkandoo waaye taxaw nañ ci bis bu baax a baax a baax di sant ñu fi teewal sëriñ Abdoulaat Ka président communauté rurale ci seen i taxawaay lépp ndax lépp nee nañ wax nañ ne lépp loo xam ne santoon nañ def nañ ko nañ ko bëggee ba defe nu koy suñu yor bu loolu jàllee nu ñëw ci taalibe yi taalibe yi ñoo ngi sant ñëpp képp koo xam ne da ngaa tënku ci ab daayira wala tënkuwoo ci ab daayira ñu ngi sant ñëpp ndax li tax ñu ma ta sant alaaji baara waxoon na ko newoon na lépp loo gis mu taxaw taalibe yi ñoo ko taxawal ndax kat ki nga xam ne soo soxlaaw ñaqam mu jox la ko soo soxlaa poosam mu ñuqi jox la soo soxlaa tànkam mu ñukku doxale la yitte ba noppi boole ci dale la nga yàgg fi kooku yàlla ak Serigne Touba rek ñoo leen mën a fay kon mboolem taalibe yi yal na yàlla fay leen te yaatal seen wërsëg ba lu ngeen bëgg a liggéeyal borom Touba rek mu yomb te yàlla may nu ak wér te may nu ak mucc te may nu mucc gu rafet bu loolu jàllee ñu ñëw ci ñi nga xamee ne ñooy wàllu perees bi mbooleem télé yi ak rajo yi nga xam ne teew nañ fi yëpp ñoom ñëpp mënuñoo jaar kenn ku nekk ci saw tur waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax yéene ji nga xam ne moom lañ fi teewe ak liggéey bi sell bi biñ liggéey suñ xol sedd na ci bu baax a baax a baax rawate na nag ku mel ni yu Youssou Ndour si Ibra ci boppam moo yónnee ndaw ne ma jëf na jëf yi woo xam ne nañ ko ñaaral bu baax a baax a baax a baax ndax sonn na ci bis bi ñetti fan yi yëpp ay waxtaan ak ay lenn lu aju ci màggal gi lépp def nañ ko ci te benn coono amu ci kon nag teraanga jooju yàlla na ko yàlla yokk te jëme ko ci kanam te musal ko ci pakk yi ak ndog yi ak mboolem nag presse bi fi teew ñoom ñëpp taalibe yi nag sëriñ bi nee na lim leen di dénk mooy lim seq ak yéen mooy di leen digal ak di leen tere nee na nag lim leen di digal mooy nañ sax ci jaamu yàlla ndax moomu fi moonu fi indiit moo nu fi ba tañ tañ moytu lépp loo xamee ne lii lu naqar yàlla la ni ko sëñ Seex Baara waxe léegi sëñ Mbàkke bu soog njabootam liñ nekkoon mooy lépp luy bëgg bëggu borom tubaa rek mooy seenu bëgg lépp loo xam ne borom tubaa bëgg ko duñ ci seen seen tànk kon sëñ bi nanu ñaanal ba loolee sama borom saxal ko bu ko defee loolu mooy kàddu yu nga xamee ne ah waxoon nañ ko waxoon nañ ma it Abdoulaat sa dàgg sëñ Ibra ci boppam beral na ko ak cantuk bopp gu wér-wér ne naa ko wax ba ñëpp dégg ko kon noo ngi sant bokk yépp dafa tolloog kilifa bu nuyoo war nga koo fayub nuyoo. koo xam ne it waxtu wu ne guddeeg bëccëg da nga koo war di sant sant ko ñaari yoon ayib loolu moo tax sëñ Galas Buso sant na sëriñ bi bat an ma santaat ko xat man tey ñaan sama borom guddal fanam tamay ko ak wér mu àggale naa li yëpp te ñu ànd ko ak moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wax rek mooy sëñ Cheikh Baara dañ lay sant di sant it sëriñ bi nga fi teewal. di la yóbbante ci moom xamal ko ne ko dëkk bii day ab dëkk ma taalibe yi fi ne ay taalibeem lañ kilifa yi fi ne yépp ay njabootam lañ lépp lum digle noo nga ca biir lépp lum tere kenn du na ci seen sëriñ Xaadim Jóob yooyu noonu lay sant di sant ki la yabal sa toxaay mat na sëkk kilifa yi fi ne it lim leen santoon lépp def nañ ma fàttali rek ñetti baat yoo xam ne moom la sëriñ bi xam ni mu door a toogee sëñ bi la dafa wax ne ñett rekk ko ñor bi ci jëkk mooy ku fi nekkal sëriñ Touba lu mu wax bu na ca kenn jiitu bi ko ñaareel mooy kër sëñ Mbàkke Bousso bi ñor na ko lool bëgg na ñépp jàppale ko ci bi ko ñetteel mooy mbokk gi bëgg na lépp doon benn bokk gépp doon benn kon nag bokki Mbàkke bokki Mbusoo beeg bokki ñëpp nan xam ne kenn rek lañ yaakaar mu Seexu Xadim radiyallaahu taala nu boole suñu bopp fab suñu lépp jébbal ko kii ko fi nekkalit it nu xool ko bët lu mu ay ayca rek bu nu ci kenn jiitu lu mu ne du noonu it nu xam ne du noonu kër Sëñ Mbàkke gi ñor na ko lool ñu koy sant taalibe yi ci biir réew mi ngi ci bitim réew ñëpp ñu jàpp loolu daal mooy kàddu yi daanaka li ma ta lépp wax nañ loo wax rek waxit la jërë ngeen jëf amin tawil lana umrana sahih lana badan wa amin jërëjëf amin wa lana saadata daarini bi aqsina ma aqil murid amin wa tub bina wa qawlina wa qum lana amin rabbana آمين وصلي على النبي وسلم وحل بهاجة كلهم آمين أسبل سطوري أسبل أموري كسر أموري بلا كبار آمين يا من أجاب من استجاب عبدي إذا كنت سنة الله kon na ñëpp